asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki umatul islaamiya ñu ngi leen di yëgal ñetti guddi yu tedd yii ci suñ kanam lu ko waral ku baax ku tedd jàmbaari lislaam di ku yéene ñëpp jàmm muy cheikh mahamadul muntaxa di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko ak wér ci barke borom tuuba naal yi mu naalal lislaam naalal ko sëñ tuuba mu mottali ko àggale ko ba tàmbale yeneen université bi mu àggale ko ba joxe ci ay prix yi piri ci barke sëñ Touba moo ko rakkam yëpp ak taalibe yëpp ci barke borom Touba. ah gan googu nag di la 27 ak la 28 ak la 29 incha allah ñu ànd kook nag sunu jëwriñ di sunu nijaay di sunu soppe ñun jànkate xaside yi ku ne xam na ne diggante alxaaji Mbàkke yu fay ak jànkate xaside yi mu boole ñu ci boppam di ñu teral ci jëmmam di ñu teral ci alalam. jënd ay oto yu bees tàq zéro kilomètre di ñu ko jox ñii mu di leen yóbbu màkk ñuy siyaar ji yonant bi ñii mu dagg ay terrain di leen jox boole ko xarit tabaski yi macha allah ak suukari koor yi ak kenn ku ne loo nekk nag bu ko yëgee nekk kook yow ba mu jeex kon nag ragal naa ne lu gën a kawe bis bii bis yi ci suñ kanam man xawma ko ci moom ginnaaw magal Touba euh, kon nag ñu ngi fas yéenee ànd ak moom bis boobu teerule ko gan gu tedd googu waaye nag ñu xam ne am na ay guddi yoo xam ne guddi yi xasida la yoo xam ne ñun la cay suñu wàll mooy fas yéene teew ca Masaalikul Jinaan bégal sëriñ bi bégal ñiy bége xasida yi mu am ca guddi goo xam ne nag samdi bu neexee yàlla man Abdou Lahad fas naa yéene ànd ak jànkati xasida yi teew Masaalikul Jinaan dundal xasida yi jàng xasida yi sëñ Tuubaa yi bégale ko Cheikh mun taxa waaye njukkale ko alhaaji Mbàkke yu fay ci ganam googu ci anam bu sell ñu ngi ñaan soppe yeeg am di jàmm yeeg ñëpp kenn bañ ko wute na fa ñëpp teew ñu ngi ñaan daal ku fa teew ku ne suñu borom faj sa aaj ba zahiran wa baatinan jërë ngeen jëf